amour dansant bu kër yi neex neex neex ba ngeen fàtte ni amour dansant moo fi jaar amour dansant mooy kër gi mën ci cuuraay ak ci ay parfum ay oud yu kenn mësta gis ay xeetu cuuraay yoo xam ni ay innovation fait par Nech Nech dafay créer xeetu cuuraay yu neex pour kër yi gën a neex amour dansant lépp loo bëgg ci cuuraay wala ci ay parfum boo duggee amour dansant daa ko fa fekk amour dansant ma nga Sacré-Cœur troit vers Yankees foofu rek moo am ay cuuraay yoo xam ni mësta am fenn boo ci bëggee am mën nga ñëwoo suñu numéro 78 421 96 96 78 421 96 96 Amour dansant est l'endroit parfait pour vous da bëgg lu neex jëf lañ. salaamaaleykum suñu mbokk internet yi sans limite dañu kontaan saa su ne ak yéen ci seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd tribune d'actu d'actualité ah mën nga ko euh, waxee sax noonu ndax ci actualité kese la ñuy waxtaanee et d'ailleurs looloo waral ñu daal seet ki nga xamante ni mooy suñu père Gaston. Euh, donc laa ñëpp xam nañ ko nga xamante ni def na lu ne si làmb ji euh, macha allah ba tey doomam euh, jël relève bi ñu koy wax makan mais nag balaa ñu sori ci waxtaan bi dama koy nuyu bàyyi ko mu nuyoog mbokk internet yu sans limite ñu ñëw ci yaatal bi père maa ngi lay ziar. waaw euh, maa ngi lay kaw kaw bu mag bi. kaw kaw man <laughs> yëg nañu ko may kaw kaw. waaw Ndiang Ba Ba Mbodj. <laughs> waaw Ndiang Ba Mbodj. waaw Ndiang Ba Mbodj. Mm. Mm. sama mbokk Louga Louga yi. Mm. Ah, ñu xam nga ay kaw kaw loon. waaw ay kaw kaw waaw vraiment dañoo paas ñu. maa ngi leen di nuyu di nuyu waa sans limite yëpp mais nag ngeen jéem a fexe da ngeen di amee limite parce que sans limite moom da ngeen di dal ba dem ba dal ci gi ëkk bi de waaw jéem leen am limite d'accord maa ngi leen di remercier di leen féliciter mhm. di leen encourager mhm. macha allah alors tey nag dañ fi ñëw ndax euh, dafa mel ne li ñu naan fraîchement da ngay da ngay doog a egsi daanaka jugee fi nga xamante ni mooy président Macky Sall euh, seqoon nag moom euh, waxtaan donc mën nga ñu ñëwaatal un peu ci recevoir bi mu la recevoir président waaw mais président daf ma recevoir en tant que sénégalais. daf ma recevoir en tant que sénégalais président sama mooy sama président la di sama chef de l'état di sama xarit euh, woolu moom a ñëw ñu waxtaan waxtaan nu waxtaan nag waxtaanu biir néeg la waxtaanu euh, réew mi la mais waxtaanu diggante citoyen la ak président de la république am waaw mais ci biir waxtaan wi am na ci rek loo xam ne mën naa ko ciy génne parce que loolu dana neex secteur bi ma nekk dana neex waa làmb ji dana neex même ku bokkul ci làmb population Sénégal yëpp muy sunu xarit euh, sunu lépp sunu frère Petit mbay bi fi nekkoon nga xam ne moo fi tëggoon Bombardier Tyson bu njëkk ba tëgg fi ay combat yu bëri nekkoon un très grand promoteur nekkoon na fi sax candidat à l' élection présidentielle doon ko fàttali ko alors mu amoon ay démêlés comme nit ñëpp mën a amee ay démêlés parce que démêlés jombul kenn mook bàmmeel a yem rek mook dee ñoo mu amoon ko malgré lui ci ngorom ci ngorom surtout tax mu gàddaayoon parce que dafa meloon ni ko xajatu ci dëkk parce que xam xamul loolu xamul gàcce xamul loolu alors bi ma toogee président nag ma ne ko président ñun daal waa làmb man ki sama wàllu bopp ak li ma seq ak yow li nu li nu gën a farataal fi ñu toll mooy petit mbay ñibbisi ci dëkk bi mu ni ma avant ah petit kon ñibbiseegul ba léegi ma ne ko non ñibbiseegul parce que gor la lu la ñibbisi xamul lu ko fi fekk pourtant affaire bi ëpp na dix ans parce que ça fait quatorze ans mais ñu doon wax tamit ni mandat d'arrêt la woon quoi. non non mais ak lu mu mën doon ëpp na quatorze ans ëpp na dix ans te mandat d'arrêt dañuy wax rek xam nga Sénégal nag dana mën a suul ndaanaan Sénégal yi mën a aggraver ay situation yoo xam ni dun ko duñu xam sax fu koy jëlee duñ ko jëlee ci juge duñ ko jëlee ci procureur mais dañuy inventer seen bopp ak wax seen yéene mais li wóor ba wóor la président de tous les sénégalais nee na Petit Mbaye na ñibbisi nee na ma wax ko mu ñibbisi man nga ko wax sax sa mbokku waa làmb yëpp que man joxe naa aval pour mu ñibbisi woo naa Petit it wax ko ko Petit dinaa ko takkal say bagages nga ñibbisi parce que réew mi dañ la soxla. dana ñibbisi ci fan yi parce que mu mbokk la. Mhm. Mhm. mais est-ce nekkul tamit si moment bu mu ko defee du xaw a ñenn ñi duñ ci xaw a dute tuuti ni élection yooyu ñëw. non ban élection waa làmb ji jàppale. non non waa làmb ji kay dañ koy jàppale sax. waa làmb ji yaa koy jàppale waa làmb ji waa yëpp koy jàppale. Mhm. li mu fi def nag defal ko làmb. ñun dañ daan loué ay arène nag ay yu kenn xamul. mu ñëw def fi arène national place yi ñëpp yi toog ci chaise léegi amatul ay. Simon amatul dara ku la defal président xam nga nit ñi ñooy gumba gumbalu rek mais président ñëpp xam nañ mi ngi liggéey waa làmb ji kuy liggéey lañu bëgg ñoom liggéey lañu xam ñoom ñaanuñu kenn waa làmb ji ñaanuñu kenn sarxuñu kenn seen doole noo amee seen ngor ñëpp xam nañ ci ngor ak dignité mais mais les quatre vingt quinze pour cent. Hmm. Macky Sall la ñu ànd. ci làmb ji ci làmb ji. ci d' accord euh, élection locale yi ñëw na daanaka dimanche la euh, fi ñu toll nii candidat yi boo doon def sa jàngat kan nga jàpp ni moom moo gën a positionné pour. Macky euh, Sall da nga wax ko. pas Macky Sall parce que Macky Sall du candidat mais hmm. hmm. Bokk Yaakaar moo gën a. positionné wu a xam nga xool asamaan jarul buuxante xaaral ba dimanche. xool asamaan gëm nga Sall day gën. waaye bu méttee métti ak Sonko li muy drainer ci fu yëpp bu ma waxee Sonko Sonko xam nga drainer dix pour cent yuy wëndeelu hmm. mi ngi mel ni benn pomme de terre rek ci saaku pomme de terre hmm. da koy day jéem a yàq rek hmm. mais amul mënul amal kenn njëriñ mais élection locale yi ni mu ni mu bindoo bu ñu continuer noonu waaw non mais mënul a noonu parce que élection locale yi bañ leen falee depuis sept mois defuñu fi dara c'est-à-dire que ils n'ont pas yeewu wuñu askan wi danoo trompé askan wi ba ba falu askan wi nag yeewu nanu xam nanu nag léegi xam nanu yeewu nañu à leur façon ñoom à leur ci seen sens. lu ñuy wax yeewu. mais li xewoon ca local ya du yee du yee. tromperie la woon. Mhm. mais côté Dakar gisoon mën nañu fa am ay jafe-jafe ndax gis nañ ay Cheikh Ba ak ñoom euh, Bamba Bamba Fall ñuy xeex seen biir ak yooyu. kenn xeexul kenn xeexul seen biir nit ñi leen bëgg a xeexloo. ah gis nañ jàppante ci vidéo ci seen meeting bi non xam nga ay vidéo ay mhm. ñaar ñuy toog sax man man ngeen a monté léegi mel ni dañuy xeex te xeexul mhm. nan bàyyi yooyu xam nga Sénégal il faut yéen sites yi d' abord aux journalistes yi d'un autre certains journalistes bàyyi yenn yi xam nga tey nga invité Gaston Mbengue di ko laaj ay affaire pétrole wala affaire infrastructure xam nga booba yaa ngi bëgg mu def erreur pour nga jiñ ko Macky Sall réew mi am ay ingénieur pétrole am ay ingénieur infrastructure am ay ay euh, kàngam invité woo ñooñu tu préfères invité ay saagakatu ndey invité ay Assane Diouf invité ay ñu kenn xamul ci plateau yi nga leen di wax ci waxi pétrole ñooñu lu ñu xam ci pétrole su ngeen bëggee su ngeen bëggee concret da ngeen di invité ku ci ne man soo ma invité ci làmb ma wax la ci làmb. d'accord xam naa ko. Mm-hmm. soo ma invité ci business mën naa la wax ci business mais bu ma wax ay wax yoo xam ni am nañu ko jàng am nañu ko xam mais pour bëgg a yàq ak bëgg a taal réew mi rek tax ngeen di n'importe quel faux type ngeen woo ko teg ci plateau ñuy dajaloo di wax ku nekk def ay donneur de ci kenn mokkul sa leçon c'est pas bien. d'accord Pape Djibril Fall euh, sa doom ñi ngi gis ni nag mi ngi euh, mi ngi avancé ndànk-ndànk par rapport ak élection yi ñenn ñi sax jàpp ni même bu dee benn député sax amaana dina ko ko ko de. Pape Djibril mm-hmm. yéene naa cousin la ñoo bokk dëkk ndànd ma yéene ko lu ne mais bu mu yàkkamti il faut pas que bañ nga ko sax ba ni benn député d' accord man yéene naa ko benn ba ñaari député sax yéene naa ko yow benn nga ko yéene ma man yéene naa ko damay wax en cas quoi bu dee en <laughs> <laughs> ñu ne nee na ñun ay Sénégalais mais mm-hmm. itam bàyyi leen di jay gumba ba mu dem di jënd billet cinéma maanaam di jënd loon nit fas yaa ca du ngeen ko guble mm-hmm. lu ne ngeen teg dëkk bëgg koo dëkkal ci ay nit bëgg a yàkkamtiloo nit Pape Djibril c'est un bien ku am avenir xale la tolloogul ci am bay ñàkk bu bu leen bu leen koo jéem a yëkkati boppam ba mu ëpp man conseil wu ko loolu mm-hmm. Mhm. d' accord alors ba léegi dañuy taxaw ci wàllu politique ndax dañuy gis saa su ne nag ay tuuma lay ñëw ci euh, Ousmane Sonko ndax tuuma lañ ko mën a jàppee tant que justice euh, réglé wu ko rek tuuma lañ ko mën a jàppee gis nañ xëy suba gis benn xale bu jigéen def vidéo di tudd Ousmane Sonko naan moo ko violé di expliqué mais loolu tamit. Ah, te demoo ci yoon loo gisee noonu. man loolu sama yoon nekku ci. Mm. su toogoon këram toog tey jabaram kenn du ko def yow dan laa tuum dan laa man man pen kenn xaw ma. per non non soo bëggee siiw demal ñu vidéo la léegi nga siiw dama wuti ku la vidéo demal siifi soo siifee léegi nga siiw soo tooñee doomu jaamur léegi nga siiw ku tooñu doomu jaamur man sama yoon nekku ci loolu xaw ma moo tooñ xaw ma tooñul mais du façon dañ koo sepp jigéen ñi ko sepp ci seen ci biir Sénégal di ko di ko mhm. ak di ko jiiñ léegi na seetali boppam moo gën muy jéem a créer toujours ay scandale ci réew mi pour bañ a wuy mhm. d' Françoise Hélène gis nañ ni moom dafa jege woon Adji Sarr trop ah donc xëy rek ni dafay arrêté parce que euh, nee na euh, Adji Sarr bëri na ay yaay bëri na ay tante bëri na ay nijaay euh, te dafa bëri ay hypocrisie si ñi ko wër moom arrêté na bu wàññi di wàññee ko wala mu déplacé wu bàyyi Adji Sarr gisoon ni xeex bi Adji na ci wéet non loolu moom am na ay raison yu tax mu ànd ak Adji te tey sama yoon nekk si nga jël. waaw am na ay raison yu ànd ak Adji Sarr. Mhm. am na ay raison yu a bàyyi Adji Sarr seen seen la man xaw ma ñoom ñaar yëpp xaw ma ci kenn. donc mënu may àtte ak di wax loo xam ni du problème. Mhm. Mhm. ki nga xamante ne mooy président Macky Ablaye ñi ñuy wax sax ni eh, mi ngi si yoon bi bu ñëwul si bu sax. sera le bienvenu. waaw loolu ñëwam macha allah ñëpp rafetlu rafetlu ko mais tëdd liste bi nga xamante ni wàllu moom la ko def loolu noo ko gisee. Ah, waaw wala dañuy wut danoo danoo wóorul seen bopp rek jël ma jël sunu maam. waaw danoo wóorul seen bopp jël sunu maam pour mu couvrir leen. campagne ñu deful dara day ñëw voté daal xam nañ ni mm-hmm. sunu maam Ablaye Wade du nekk député. suñ ko faloon nit sax day bàyyi. mais nag ñoom comme matuñu leen doon. ñoom ñu waroon a wóolu seen bopp. war a jaay seen bopp ñuy ñuy jaay seen bopp à travers le sunu maam Ablaye Wade ah ñu bàyyi leen ko rek. Mm-hmm. mais wala tamit yaakaar nga si dara. ñoom man man naa am dara parce que sunu maam Abdoulaye Wade. Mhm. lu ko mën a waxal man naa am ñetti député mhm. ngi gis ne cohabitation. bu am ba mu ca tolloo na lu ne. waaw te léegi nag nit ku ne nag day xamit. Mhm. foo toll ak foo xam ne ak temps daal cohabitation bi ñenn bi waa APR di tiit naan bis bu amee dañuy téye liggéeyu Macky Sall ak yooyu est-ce que gisoon cohabitation sax dina mën a relever le niveau du débat fi nga xamante ni moom mooy. yéen da ngeen di wax ci affaire cohabitation mais xamu leen sax la ñuy cohabitation ñi ci wax ñëpp cohabitation mënu la yàqal Macky Sall dara d'abord duñ fa àgg parce que Macky Sall euh, Benno va gagner largement duñ fa àgg mais si par extraordinaire ñu àggoon fa sax fii ñun on dans un régime présidentiel Macky Sall mooy fal premier ministre su ko neexee fal civil su ko neexee fal militaire su ko neexee fal ku bokk ci parti su ko neexee fal ku bokk ci parti mooy fal ku ko neex mooy définir sa politique aussi donc amu ci dara nit ñi nag ñooy mëriirandoo ku nekk yi wax rek cohabitation ay troisième mandat dixième mandat cohabitation démocratie xamu leen sax la ne démocratie mm-hmm. da ngeen dañuy waxandoo rek ñëpp a àndandoo ku nekk yi wax. Mhm. ñuy wax rek. Mhm. ñuy euh, xam naa nag dañuy jéem a dugg ci làmb ji mais balaa ñuy dugg ci làmb ji pour tëj émission bi ndax tey euh, bëgguñu la fi tee lu yàgg. alors ci euh, dañu gis sa doom Titi gis nañu récemment li nga xamante ni mooy jàkkaarloo ki nga xamante mooy Balla Gaye ak Gris mu way def live ñëpp kontaan sa diggante ak moom yëpp xam ko démb ñu gis mu def benn vidéo wala sax benn interview ba ci relaté benn vie personnelle am par rapport ak mariage forcé bi nga xamante ni jotoon na ko dund commentaire yu bëri ñu bëri ne wala wax c'est sa vie privée wala ko woon relaté yow mi bàyyam noo wax boobu. nen parce que nag mm-hmm. sama titi sama mm-hmm. sama doom yi ma jur yëpp. Mm-hmm. dama koy toog ci télévision di ci joxe sama samay. Euh, avis samay avis. par respect du ma ko def. ni doom jur noonu laa ko respecté. na toog si télé di ci wax. non je sais la mu def ko artiste la. toujours artiste def fi lu gën a garaaw wala wax fi lu gën a garaaw pourquoi ñu bëgg a taamu tiiti rek. Hmm. Hmm. da nga gis ni daal single la daal. waaw mais man ko single Sénégal moom ñëpp ak ñi koy jël di ko tëkkaleeg Viviane saa su ne. non non non fii ku fi baax. Hmm. tiiti ak Viviane ay sœurs lañu. c'est que euh, Sénégalais yi ñoo war a bàyyi ay tem leen teg fekk leen teg ay sóol ndaanaan. ñoom fexe nañu ba mel ni nu mel fii tiiti fexe na ba tudd tiiti am tur. Viviane fexe ne ba tudd Viviane am tur. donc ñoom ñi amul tur nag ñooy nekk rek. di jaxase nit ñi nan bàyyi jaxase bi mm-hmm. def nañ ko fi ci pa Pape Diouf ak Wally Seck def nañ ko fi ci Youssou Ndour ak Thione Seck mais yooyu lañ war a bàyyi mm-hmm. Sénégal benn bopp lañ yéen ñi koy relaté sax vous ah, parce que c'est joxe information rek mm-hmm. am na information yu gën a saine yu ngeen war a mën a joxe mais am na yoo xam ne c'est malsain jarul di jéem a wuti parce que yokkal nit ki buzz la sax koo xam ne lu bon lay def jarul yokkal buzz <laughs> d' accord léegi ñu dugg ci wàllu làmb ji euh, xam nañu làmb ji nag euh, comme ni ma ko waxee sànq sa doom makkan daanaka moo géré les coordination beeg lépp est ce que parfois dina lay arrivé nga dugal ci sa loxo carrément. Ah, comme ça di di woo mbër yi di communique ak ñoom. non non non mooy communiquer ak mbër yi mhm. mooy wax ak mbër yi. Mhm. su demee ba am lu ko ci bëgg a jaaxal comme mbër yi ñoom ñëpp samay doom la ñu aussi mën naa leen woo parce que nag. Euh, génnuma ci complètement ci it ma jël sama doom sa sarxe ko sànni ko ci mbedd mi comme ça ci milieu làmb comme ça. Mm-hmm. du ko def. Mm-hmm. il ma ku parce que du ma ko def dama mm-hmm. bi. malsain et tout façon bu ne nekk ji. moi j'ai j'ai tout fait pour mes enfants. leen di ànd ak euh, di di couvrir sa doom ak ànd ak moom. benn papa bañu. papa ju baax ju ne da ko def. di ko def alors euh, gis nañ tamit euh, ni làmb ji daanaka jege na. le 7 août la n'est-ce pas waaye gis nañu bi ñu defee shooting ñoom ñaar coow dafa bari ñu bari naan ñoom ñaar yëpp kenn amul forme ni ñu mel seen kii forme bi baaxul ñu ne daal dañu leen a boole nii rek bëre lool nii nii daal mais ñu ni làmb ji sax dina neex. waaw su la xam dara xam nga xam nga ay nit mm-hmm. yàq. yàq yàq yàq yàq bi bëgg a dee mënuñoo yàq. Mm-hmm. wala ñu jëm a yàqal gaston bi bëgg a dee ko gaston ko kenn mënul mm-hmm. a wax. Mhm. ndax soo la. Mhm. nga ko bàyyi. Mhm. waaw ku bëgg jàmm bu yóbboo nga bàyyi ko. sa diggante yéen communicateur traditionnel gis ñu leen ci làmb ji ah, par contre euh, Bécaye bëggoon nañ ñu bari sax amoon nañ envie à ce que muy ñëw ci say làmb rawatina si kii yi jàkkaarloo yi muy téye micro bi parce que parfois nii xorom si day xaw a si yéen. présentateur man damay affaire benn xorom manqué wu. tey sax la gën a baax. je suis très satisfait ci mm-hmm. sama déroulement. Mm-hmm. combat mi ngi dox. ci suuf la setee ñëpp dañu gis. Mm-hmm. bàyyi leen di may nit ñi bës bu am. tey communicateur ak ñoom ñu fi nekk ñëpp. suñu tolloo nii ci làmb Gaston production moo tax. waaw waaw bu dee moom à travers classe bi en quelque sorte. voilà moom à travers bi ñeneen. rajo yeeg. télévision yi tey su ñu amee ay émission ba ci am bay jël di embauché ay nit ñu cay liggéey. Mhm. su ma nekkul woon fii ci làmb ji depuis 92 loolu du am. ay sites yi nekk exclusivement di liggéey ci làmb. waaw sites yi nekk ci di liggéey ci ñëpp. Eh. su ma fi nekkul woon. Mhm. defu may lépp nag. Mhm. mënumaa tëgg ñëpp. mais sama audace. ak sama osé. moo tax ba làmb ji ak fii tey. kon man benn communicateur mënumaa jaaxal. à part làmb jooju yéen làmb yi ñu mën a xaar peut yoo xam ne dina euh, am coow ak yooyu. non làmb yëpp am coow. Gaston suñu jógee fii. déjà il a Balla Gaye a Sa a Balla a d'autres mm. mais mais mais sa doom sa doom Zoss sa jour dama koy tooñ saa yu ñu déggante naan ko euh, sa père Gaston loo sa xarit la ko quoi da doon fal di tëgg lu bari. ah non ko woo tëggal ko. gaa dañu namu namu Zoss quoi. non barki dem rek mm. la ko mm. a tëgg moo ko waaw hmm. mais doom la nag. Hmm. gi fi la dëkk. Hmm. d' accord en tout cas kontaan nañ ci ci waxtaan bi xam naa dañ ciy dolli rek ci li nga xamante ni moom mooy euh, Petit Mbaye bi nga xamante ni war na ñëw donc buy ñëw da ngay dem teeru ko daal. Ah, bien jëli ko. Euh, bien sûr su ko ku ko yëg da nga dem teeru ji ko. parce que Petit Mbaye dafa am lu mu représenté ci réew mi. donc euh, ñun daal li ñuy def mooy gërëm le président de la république Macky Sall. waneeti na humanisme am waneeti taxawaayam parce que nit du complexé nit du ni rek su ma defee lii ñu ni lii doo dé da nga déglu sa askan bu baax mais ci li positif lu négatif moom du ko déglu mënula xam lépp nag mais fu ñu ko waxee lu baax wala loo xam ni lu defu la luy satisfaire population am la dina ci def li mu man mooy li ko dal nii tey bi ma ko waxee waxi Petit bay vraiment illa a accueilli les bras ouverts Hmm. ah mais parfois tamit am na ñu nekk si si kaso bi yàgg fa nekk fa ay mandat dépôt def ñu leen dara ñooñu tamit. mais mais dama mhm. soo ak dee. Mhm. ñoo yem. Mhm. nattu yàlla la. nekk ci kaso bi mën noo génne ñëpp. da di mbay woon ci kaso bi am na problème nit toujours nga am mbokk moom problème seeti sa beneen mbokk pour ñu mu ñaanal la pour mu intervenir la c'est pas parce que comparaison yi ngeen di def comparaison n'est pas raison bàyyi leen di comparer yu ay négation. faut être positif dans la vie. <laughs> d' accord léegi xoolal fii ñu tëjee de maa ngi bëgg a tëj sànq ba léegi mais chaque relance day ñëw léegi làmb ji euh, bee yi ba am na ñu doon kaas naan dafa xaw a seer bee yi je pense que la woon moom moo gënoon ndaw. Mm-hmm. waaw bee yi. fay bi yoon la. bi yoon te su gënee cher ku xalaat ni. Mm-hmm. bee dafa cher nga toog sa kër mu mais mais xam nga ñëw ay clients lañ mënoo maslaa ñoom tuuti gënoo loolu. su may fay mbër 100 millions kenn du li nga fay bëri na. kooku li hmm? lay fay fay. compal gi ni lay compal da ngay liggéey. compal laaju mën a compal. man ni lay da lay compal. waaw ah. ah. ah, d'accord donc waaw mais lamb ji moom bon bu fekkee 3000 la moom c'est bon quoi 3000 moom man sama genre dinañ mën a dem seetaan mais bu dee 5000 la jëm kaw duñ ko mën a seetaan. d'accord ku mën la nga toog déglu rajo. Hmm. nga internet yi moom. buñ fa laal buñ fa jege. ah non bu la. heureusement am na benn sponsor bu ko maye au niveau du Sénégal muy di Sengo maye ko pour ñu ubbil ko ci ñaari télévision ñu diffuser ko en direct. en direct waaw mais ku ko jéem a piraté it. foofu loo ci ubbigal ko. yan télé la. ITV ak euh, Sen TV. 2STV bokk si. Oh non c'est pas mon problème 2STV nag. Hmm. y a 2 y a FM y a euh, RTS mi nga xam ne mooy seen maam ñoom ñëpp. Hmm. man sama liggéey man man la concerné maa moom sama yëpp. sans limite bi ñëw sama mhm. ah. parce que yow lañ bëgg a waxal daal <laughs> <laughs> ah. waaw ñu diffuser lu. d' accord d' accord moom dalaa faa nee na yow yaa fi nekk léegi euh, kontaan xam naa dañuy joxe rendez-vous ba beneen yoon léegi élection yi nag bon comme non violence bi tamit mën nga si mën a ah, lancer message pour sa doom yi. yàlla vraiment. Mhm. benn benn bopp ñun ñoo ko bokk bu kenn déglu ay yàqkat ak ay taalkat na ñëpp xam ne ñun ñoo ko bokk préélection yi lundi ñëpp fàtte élection yi di xalaat nag léegi ñu plongé ci combat le bi dafa naan loolu moo am solo yi ci des yëpp c'est des détails c'est des faux problèmes d'accord kontaan joxe rendez tey la wax loolu waa njàng sax si micro bi per. Ah, ah, waaw nuyuwaat rek nuyuwaat du ko yàq nuyuwaat waa njàng waa njàng maa la gën a bokk ak waa njàng man ba muy dem njàng boobu juddu <laughs> ñooñu samay mbokk lañu maa ngi leen di maa ngi leen di nga ah. ziar di leen defal lépp. Mm. parce que njàng mooy Louga. Mm. Louga mooy njàng. dëgg la <laughs> njàng mooy Louga Louga mooy kooku suñu père Gaston moom moo ko wax. Mm. wolof nee na dompat ci sot la bokk te sot mooy bëgg waaye bëgg bi tax ñu naa bëgg nag loolu mooy bëgg le eh, moo tax ñun saa su ne dañu am cawarte ak eh, mbégte bu baax a baax. di ñëw seq moom wax waa àllu Louga bi nag ñu ñu ngi bëgg a raatale ndax Lamine bële Looro la dëkk. ci wetu Lamine Seck waaw Looro Looro dëkk. Ah. ci ginnaaw Louga yow nga dëkk njàng ci ginnaaw Louga góorgóorlu leen vraiment. ko non kontaan naa ci. <laughs> merci beaucoup di nuyu suñu confrère boobu Lamine bu Lutte TV ça a été un plaisir de vous servir Thiam moo nekkoon si réalisation bi accompagné par euh, Toumani mon frère Ouzin moo nekkoon si présentation bi jaajëf.